président Macky Sall daat nay wax ne danañu amal ñetti fan yi dëcc tey jii lay commencé dinañu amal conseil interministériel boo xam ne danañu waxtaane lépp loo xam ne jëm na ci wàllum kaaraange dem bi ak dikk bi maanaam sécurité routière bi la fay waxtaane moom njiitu réew ginnaaw accident bi nee na dana jël ay mesures yoo xam ne yu am solo lay doona maanaam mesures yu rëy démb ma ngi woon ca diwaanu Kaffrine yéen kaay gi de la Tribune nee na accident bi metti na nañu si ay gaañu-gaañu am na lu toll ay cas grave ñaari bus yi ñi si duggoon ñëpp bi ñu ko xayma téeméer la ak ñeen fukk maanaam cent quarante personnes ñoo nekkoon ci ñaari bus yi bi ñu ko xayma journal bi nee benn bus bi chauffeur bi faatu na Moussa Sumbundu la tudd kookee nag yàgg na xeex ci lu jëm ci wàllum accident yi ma nga dëkk ca Vélingara yéen kaay gi de ñu xëy fekk fa ministre bi ñu dénk wàllu ndem beeg di Mansour di am ci dikk bi ci suuf si ba tey ci journal bi nee bëri na chef d'état yoo xam ne wane nañu seen condoléance ci Sénégal maanaam masawu nañ Sénégal ku ci mel ni njiitu France di Emmanuel Macron yéen gi di 24 heures ñu xëy fekkaat fa Mansour Faye ministre bi ñu dénk wàllum transport nee na technique yi ay taf yëngal la te loolee bokk na ci li nga xam ne mooy waral accident yi yéen gi di réew mi quotidien nee na accident yi li koy respecté wuñ code de la route bëri na ci ay chauffeur yoo xam ne bu ñu sonnee du ñu noppalu bu ñu gëmmentoo du ñu noppalu lenn li nag maa tey la kàddu yu Assane la ma ngi ci bi di Rewmi Quotidien nee na tamit bëri na ñoo xam ne dañuy def ay njuumte te kenn du leen sanctionné ay camions yoo xam ne dañu koy gis ñu paan ci kaw tali bi te loolee bokk na ci lii waral accident yi yéen a kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu accident bi métti na genn xeetu métti goo xam ne ñaar fukki rek lañ sa na li ci des ba léegi gars yi ñoo ngi xool waaye xàmmeeguñu leen journal bi nee na accident bi moo métti yéen a kaay gi noppale ñu xëy fekk fa Sadio Mané muy masawu askanu Sénégal ginnaaw accident bi ak Emmanuel Macron ak Marine Le Pen Ousmane Sonko njiitul Pastef levée de fonds bi mu naroon a amal dimanche bi ñu génn daf ko daal di fomm ñi nga xam ne ñooy waa PDS ñoom ñuy sàkku ci askanu Sénégal ñu daal di respecté ñetti fan yi nga xam ne ñetti fan yi dëj la maanaam trois jours de deuil yi na ko askanu Sénégal respecté muy Déthié Fall di Khalifa Ababacar Sall homme politique na ci ñoo xam ne yëkkate nañu ci ay kàddu yéen gi di bés bi nee na lii dafa bees rek waaye accident yàgg naa am ci Sénégal ndax ci atum 2022 bi bi ñu ko xayma lu toll ci 700 morts moo ci am maanaam juróom-ñaari téeméeri nit ñoo xam ne faatu nañu ci accident ci atum 2022 bi ci yoon yi journal bi ñu xëy fekk fa Ibrahima Ndongo expert transport la xelam màcc jëm ci wàllu dem beeg dikk bi nee na xel yu metti yi nga xam ne moom la ñuy daw ak oto yi nga xam ne dañu koy chargé ba mu fees dell loolee bokk na ci li tax pën yi di kalaate di toj yéen kaay gi di réew mi quotidien di Cheikh Dieng démb daat nay moo ko waral nee na ñaari bi pën bi moo toj mu tojee mu fekk si toll ak juróom-ñetti nit ñoo ci faatu loole la procureur wax yéen kaay gi du l'observateur nee na accident bi lu doy te tiis moo si am ndax am na ci benn jigéen boo xam ne maanaam ci biir oto bi bi mu demee ba nga xam ne ma ngi ci diggante dund ak dee dafa wax ñu jox ko doomam ji ngir mu xool ko bala moo faatoo am na ci benn soxna boo xam ne ëmboon na ba toll ci juróom benn ci ay weer am na ci koo xam ne ñaari doomam ñoo ci faatoo journal bi du l'observateur nee na ci benn weer bi rek ci Sénégal lu toll ci juróom fukk ak juróomi nit faatu nañ ci accident ci yoon yi yéen kaay gi de la Tribune nee na xalif général des Mourides Serigne Mountakha tey ji santaane na njàngum alxuraan ngir nag ñaanal ñi nga xam ne ñoo faatu ci accident bi ak ñi nga xam ne jamono ji dañu see am ay gaañu-gaañu xalif général des Tidiane Serigne Baye Sy Mansour ji dina amal déclaration yéene kaay gi di laas ni mu tuddee accident bi catastrophe nationale gouvernement bu Sénégal décaissé nañ lu toll ci deux cent millions yéene kaay gi di la réveil quotidien nee na Macky ak li mu wax ne danañu si jël ay matukaay yu yees loole nag dafay firndeel ne Macky Sall dafa la ji ci lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi nan la ñuy def ba saafara li nga xam ne mooy accident yi mal ni tulleeg male maanaam ci tëli bi yéen a kaay gi di la a kaay gi di 24 heures Boubacar Camara nee na atum 2023 ndax mënoon na année ba pare maanaam nga yokk li nga xam ne mooy carburant bi gasoil beeg essence bi ak li nga xam ne mooy courant bi réewum Sénégal bor yi bëri lool moom Boubacar Camara ci journal bi nee lu jëm ci wàllum gouvernance sobre ak vertueuse loolee bu ko kenn tudd ci réew mi ndax amul ci réew li yéen a kaay gi leen foo xëy di ñu xibaar naan ñu Thérèse Faye daan investir Macky Sall ci élection présidentielle 2024 yéen gi da la quotidien yor yora nee na ca ndaje moomee nga xam ne Thérèse Faye doon na ko amal lu toll ci 200 yoo xam ne moom la fa yàqate bëri ministre yoo xam ne dañu ko boycotté jàppante amoon na ci diggante élèves ak yi nga xam ne ñoo ëmb maire journal bi nee na Moussa mi nga xam ne moo jiite COJER léegi tey ñu tëbal ko yéen kaay gi gi di enquête nee na kuréel gi ëmb taskatu xabaar